buñ koy wax ne diw dafa am xam-xam mooy lan résumé la lu ñu lu ñu résumé la résumé bi lan la xam na xàmmee na mag ñi daawuñ jàng lu jeex lu xaaj lu ñu am rek lañ daan jàng mais topp yàlla lañ daan topp yàlla ba yàlla di leen defal loo xamee ne lii lu ñu def mu dëppoog lu yàlla bëgg bi himmatin aw bi xaali loolu la leen yàlla daan joxe li mu leen daan jox te nag loolu ku koy pour nga am ko da ngay jaamu yàlla def nawle say morom te gis ngeen képp koo xamee ne yeggaguloo ci taxwallahi doo kenn te nag nuñ koy firee mooy jomb jomb naa nangam jomb naa pour nit yegg ci foog dafay gëm yàlla gëm yàlla gu loolu mooy tax mu mën a am jomb te nit bu jombul dara bu ko neex def moo bàyyi may ñooyam yàlla yàlla defal ñu tawfiq yàlla yàlla dool ñu sutura